ëpp ci candidat yi nga xam ne dañoo bokk ci présidentielle bi ak ab collectif citoyen ñoom ñëpp dañoo dàkkandi niki tey jii dialogue bi nga xam ne njiitum réew mi i Sall dal na koy sàkku niki démb ngir dal di mën a euh, tànn date ngir ñu amal élection yi ba noppi dal di génne Sénégal ci crise bi mu ne waaye njiitu PRP jàpp na ne wooteeb dialogue bu njiitum réew mi du dara lu dul ngir xàjjale leen. du tey nga xam ni opposant yi ku nekk joxe nga sa position. nga war a dem ci nga leen di dajale au pour xool noo leen di jaxasee kii wax dama bëgg élection yi am kiy wax dama bëgg reprise processus électoral bi am nga toog di leen reetaan wax ni voilà votre classe politique c'est une classe très responsable. président bu coalition Diao 2024 moom gis na ne dialogue bi du dara lu dul nax leen te loolee duñu ko nangu. ba tax muy sàkk ñu amal élection yi laata ñaari fan ci weeru avril. conseil constitutionnel bi nga xam ne moom mooy àtte ci mbirum élection c'est le juge des élections moom moo ko ne doxalal ni mu waree avant le 2 avril selon le considérant 14 pour que pour joŋante yi am donc ñun ñu koy wax ni lii moo ko dese ci digganteem ak sénégalais yi mu sàmm ko. pour jàmm réew mbir maa ngay gën a métti ci njiitum réew mi Macky Sall mi nga xam ne ba muy jàkkaarloog taskatu xibaar yi dafa sàkk woon ñu amal dialogue national bu yees ngir ñu mën a tànn date bu ñuy amalee élection yi niki altine ji la waroon door waaye front bi nga xam ne moo ëmb candidat yu nekk ci élection présidentielle yu cinq février yi muy FC 25 ne ñoom fas ñu yéene dem ca boobu lay waxtaan.